jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte comme ni leen koy defalee saa di leen siyaaraat bu baax a baax a baax ci àjjuma gi di leen baalu àq di di leen baal àq di ñaan suñu borom mi am jéggal yàlla na suñu borom boole jéggal ñuy siyaaraat bu baax a baax a baax fépp fu nekk ci àdduna euh, di béggee wasaare làmb moo xam nga ne ci réew mi ak bitim réew di leen jaajëfalaat bu baax gis nañ ànd bu rafet bi ngeen ànd ak ñun gis nañ bëgg bi ngeen ñu bëgg tey bu leen neexoon ngeen ne ah kii kat ci écran bi wax dëgg ñoo ko gën a xam làmb waaye yéen a ñuy comprendre di ñu bàyyi ñuy def li ñu ko bëggee ñuy ñaan rek ngeen gën ñoo teg loxo jàppale ñu seen doom seen rakk seen xarit seen doomu ndey seen lépp euh, bàyyi jiili moo leen fi nekkaloon loon mbokk yi ñu leen di siyaaraat bu baax a baax a baax bëggoon tuuti rek ñu waxtaan ci làmb comme ni leen koy defalee saa su tey nag dafa am koo xamante ni ci moom lañ bëgg a waxtaanee. ci carrière ni mu commencé fi mu toll ci làmb ba tey mënuñoo lim juróomi mbër yu mag te duñ ko ci boole te ba tey ji combat yu mag yiñ ñu doon séentu yépp ci làmb taxaw na sëf combat moom kooku ñuy waxtaanee mooy Lac de Guiers numéro 2 le Diato de la banlieue xale bi nga xamante ni géejuwaay am nañ ci moom yaakaar Casamance am nañ ci moom yaakaar mu nekk mbër moo xamante ni bu dugg see ci làmb da gis concentration bi muy jox làmb moom la dëgër de gis cër bi muy jox adversaire gis dalam ak tey ba bëree am ndam nga gis ni kii kat li mu am dafa technique am na technique boo xamante ni nekk na ci moom boo xoolee durant classe bi mu duggoon boo àndoon moom ak euh, la dëgër de euh, yikine Junior Issa Pouye euh, Tapha Tine ñoom ñooñu ñoo bokkoon poule mais yàlla suñu borom dogal la dégeer génn fa beneen poule bi Zos génnoon fa ñu daje finaal la dégeer de daan Zos mais ci biir loolu mu ngi def ay jéego jëm ci kaw chaque jour mu ngi wane ay preuve mu ngi wane ay jéego mu ngi jëm ci kaw lan ma waral la dégeer de ñëw ba ci kaw bëreeg Modou Lo euh, niil benn combat bi deuxième combat bi Eumeu Sène daan ko euh, deuxième combat bi Modou Lo daan ko mu bëreeg Eumeu Sène niil benn combat beneen combat bi Eumeu Sène daan ko tey ñuy doxaat ci jéego ba mu bëreeg xale bi di Boy Niang numéro 2 Boy Niang dugg géej waaye am jaloore yu mu fa def la déggee de jël ko freiné ko xamal ni ko boo njëkkee woon ci man doo laal keneen tey Boy Niang am na yeneen combat yu ñuy dox doon nañ fi waaj moom ak Balla Gaye 2 tey ñu ñëw ci Lac de mi nga xamante ni moom mooy. champion bi moom la war a waxtaanee Lac de dañoo gis ni komba Gris Bordeaux ak Balla Gaye taxaw na komba Modou Lo Ama taxaw na komba booy Niang Tapha taxaw na ñi mu waroon dajeel ñëpp ci làmb daanaka mën nañ ni am na komba kon carrière fan la jëm ci làmb Lac ban ban melokaan la war a indiwaat ci làmb ñii nee nañ bëreeg Lac de neexul ndax lan dafay rasu soo ko jàppee mu daw amul xorom ci bëre. bu bëreem bu bëreem bu bëree du neex bu xeexee du neex man leen loolu moom bu leen ko waxati fenn la dëgg de day neexal làmb bu duggisee ci làmb da xam ne kii mbër la ci biir bëre bi nag mbër mu nekk ak sa stratégie bi ngay tegal sa adversaire ba daan ko loolu dafa bokk ci làmb stratégie boobu mooy tax nga gañe sa combat parce que làmb dafa doon la sport boo xamante ni ku nekk da ngay ànd ak say mbokk waaye dernière bi ngay mujjee def ak say mbokk conseil bi ngay bëree ñoom ñoo la koy jox boo ñëwee ñu ne la téel sa bopp nga téel sa bopp boo ñëwee ñu ne la bëreel nga bëre buñ ne la xeexal nga xeex Père Birahim da wax naan làmb mun ci benn kele rek ci mën bëre la bokk rasu rek ci bëre la bokk te la déggee de ñu ci bari dañ koy wax que ni moom dafay rasu mais rasu boobu ci bëre la bokk mais lag damaa yaakaar safara si des ci moom dafa am safara bu des ci moom sa safara boobu mooy boo waxee sax danaa non làmb moo ñu booleek diw bu bëggee mu ñëw ñu bare su bëggul ñu xool nu ñu def te làmb pour man dafa am lu koy jaay avant war ngaa mën a soo soowal sa làmb ba ku la gis xam ni kat sponsor yi dañuy da bokk ci ñu leen di woo ñu ñëw da ngay bokk ci ñi yëngal làmb da ngay bokk ci ñu nga xamante ne amateur làmb yi dañ leen di bëgg mu waral safara dafa am safara bu Lac de Guiers war a yokk ci boppam parce que làmb nag des fois mbër gaa yar ak teggin baax na ci làmb lool sa adversaire nga respecté ko mais bu ngeen amee komba ngeen jaay komba bi fi mu toll ni mbër yi dàqa jaay komba am nañ combat Ama Baldé bu dugg see ci làmb depuis signature bi bu commencé ba nga jël avance am doo am jàmm te bu ñëwee day wane ni lii ci làmb la bokk day ñëw ci signature contrat yi neexal ko ba mu neex Modou su amee combat bu ñëwee day jaay combat am signature contrat yi mu neexal ko ba mu neex Balla gay 2 noonu ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci làmb bu ñu ñëwee rek am na ci mbër yoo xamante ni signature bi ngay gën a yàqamte ci kër seen làmb Zos da ciy joxe exemple Zos Zos bu ñu waan làmbam dafa mën a soo bu soowee da ngay xam ne kii làmb ji ak lu mënti xew dina neex askan wi dinañ ko xaar guy gi noonu mais la dëggee de loolu dañ koy desee gis ci moom promoteur yi lan moo tax ñu bedd ko moonte combat yi leen neex la dëggee de tafaatin combat dàq ko parce que la dëggee dafa daanoon tafaatin war na ko mën a may revanche ñoom ñaar war nañoo mën a laale la dëggee de Gris Bordeaux jànq la ñoom ñaar mosuñoo laale Gris doo nga ne fas kii mu ngi nekk Géejawaay te ñoom ñaar yàgg nañoo bëggante buñ leen boole woon luy njokk làmb lay doon mais ñu ngi doon wax revanche am moom ak booy Niang mais dafa teel munoo daan Boy Niang daawaati jékk ren nga may ko revanche moo lay wan ni mbëri mag yi war nañoo séentuwaat xale yi ndaw yi ne ci làmb la dëggee de gannaaw ñooñu ñëpp romb nañ ko nu muy def ci saison bi mbokk yi yéen laa koy laaj day day wàcc ci suuf may xale yi nga xamante ni jàpp nañ ni war naa mën a laaleek ñoom wala day xaar combat yi ñu monté ba pare tas ñu mun cee am adversaire lan la moo ci seen xalaat mbokk yi loolu nag yéen laa koy bàyyi wolof daf ne Tonguandé euh, moom du teew ñuy natt ci waaye man de li ma gisoon mooy la déggee de fi mu toll nii actuellement ci làmb war nañ koo mën a war na mën a gëstuwaat xale yi pourquoi pas guy gi euh, kii taxaw na guy gi rek rëg taxaw na. mais Lac de Guiers 2 Reug bu neex la woon guy gi Reug taxaw na léegi rag Lac de Guiers Garga Mbossé làmb la boo xamante ni làmb ju neex la war ñoo mën a laale Lac de war naa mën a may Malick Niang sens pourquoi pas mu jël forsa parce que xale yooyu waruñoo mën a toog ci làmb di xaar déedéet waruñoo xaar loolu nag moom Lac de Guiers li wolof naan moo yor cëggali guyam rek mooy xool nu mu ko neexee mu defee ko noonu moom mooy xool soit bu ko bu ko xale yi neexee mu xool xale bi comme li mu defal booy Niang loolu dañ ko ciy félicité may sens booy Niang booy ñaaw ñëw malgré da doon def examen mais réussirul li mu bëggoon def la déggee de freiné na ko mais pourquoi pas mu may ñeneen ñi sens xale yi ñëw carrière la déggee de fi mu toll nii ci làmb ñu ngi bëgg a wax ni mu ngi mu ngi mu ngi taggatémbe parce que adversaire yu bari te loolu arrangé wul benn mbër. boo xoolee Malick Niang depuis mu jóge ci Ama Balde ba tey mënul amaat combat te fi mu toll nii làmb looy gën di dem làmb di la gën di fàtte ngay gën di suux te mbër chaque jour da ngaa war di bëre Forza looloo ko dal moom it da daan da doon bëre tout le temps di compétir mais fi mu toll nii gisatuñ ko làmb da koy commencé fàtte moo tax bëri ñu ndaw yi buñ amul adversaire ñi ngay yóotu ci kaw bu dee mënuñu laa jël jëlan ngi ci suuf nga bëre làmb loolu la bu la fi say morom bàyyee wala ñi la mag may ñu la sens nga ñëw jël say rakk bëreek ñoom parce que li ci ëpp ëpp solo mooy ngay compétir sénégalais yi xam ne kii kat champion la mu ngi def ay preuve la euh, li ko may li mu am ci làmb lan la di dem ci lutte simple yi di ci wàcc di wane boppam ba am li mu am ñu jox ko Tonnerre euh, ñu jox ko Elton mu daan Elton ñu jox ko Gris mu daan Gris fi mu toll nii yegg na ci kaw pourquoi pas mbër yi mënuñu koo bañ guy gee fi sës guy gi jël na ko ñoom ñaar dañuy bëri soit guy gi daan koo mu daan guy gi yépp yegg na ci cour de grands kenn mënatu ko fi génne xale yi nañuy def loolu Serigne Ndiaye 2 barki démb la jógee ci ki nga xamante ne mooy Libidor daal Libidor dem na jëli Sococim lu mu fa mën a am mooy loolu Sococim a ko jiitu ci làmb moo ko njëkk a bëre mais xale yi ñu ngi bëre seen biir. làmb loolu bu leen ko fàttee loolu dafa am solo ci làmb parce que mbokk yi tamit lu mën a xew rek mooy mbëru làmb moom boo nee sport làmb mooy sa métier dimance bu jot dangaa war di tooyal sa xaftaan boo ko tooyalu ci bëre dóor bi dem ci bëre simple yu wàcc say rakka ngi fa say moroom nga fa nga koy ñàkkanteeg ñoom est ce que dinañ dem ba ay jamono fi mu toll nii ci làmb lit simple nga jékki-jékki gis Garga Mbossé wàcc ci lit simple bi jékki-jékki gis euh, Lac wàcc ci lit bi jékki-jékki gis booy ñaa wàcc wala Gris 2 wàcc te pourtant mun nañ koo def ay xale lañ ñuy bëri ci lutte simple bi même génération lañ ñoom seen biir war nañoo mën a wàcc ñu leen di gis mais lutte simple ay euh, koo ci gis ay général Malika ngay gis muy ñëw tout le temps Obali ah, moom ngay gis tamit muy ñëw Franc euh, Cheikh Tidiane Niang Boy Faye ah, Selemele euh, ak ak ak yeneen mbër yi nga xamante ni Toubacouta ñenn ñi nga xamante ni chaque jour da ngay ñëw ci bëre simple yi da nga leen fay fekk ah biram kunkung ñoom ñooñu ñëpp ay xale la ñoo xamante ni bëre simple bi moo leen di wane chaque fois mu ngi leen di wane ñu ngi ciy def ay preuve mbokk yi loolu lañ leen doon dégtal rek ci waxtaan tey bëgg a xam carrière Lac de Guiers 2 fan la jëm fi mu toll nii mais bàyyi leen ci xel bu baax a baax a baax làmb ji moom ragal nañ ni saison bi dina neex ragal nañ ni bu saison bu ubbee. ak jàmm akum salaam dinañ ci am làmb ju neex dinañ am làmb joo xamante ni euh, liñ namoon ci làmb yëpp lu wolof euh, liñ naan ku màndiwut làmb daaw ren moom bu saison bu ubbee insha allah Sénégal gépp wala fi waay nekk ci àdduna di nga màndi làmb ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ci kanam tuuti dinaa dalal soxna Fatima mu ñëw toog fii sama sama jigéen boobu sama chéri bi ñu waxtaan ci làmb moom it ñu jàngat tuuti rek jàngat tuuti ci làmb ni muy doxee ak écrit yi nga xamante ni euh, yaakaaroon nañ leen ci làmb te gisuñu leen léegi léegi incha allah mbokk yi ma dalal soxna Fatima ñu wéyal waxtaan bi ana soxna Fatima yegg si kaay.